wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar mbokk yi ñu ngi fii ci kër Serigne Touba gi nekk ci Daaru Marnaan ci wetu garage bu njëkk bi ndaje mu am solo Touba ca kanam ci njiital Serigne Abibou Mbacké moom Serigne Falilou mi nga xam ne mooy responsable moral bu Touba kanam ànd ak Serigne Abdoul Ahad moom Serigne Abibou président Serigne Abdoul Fattah Guèye ak mboolem kilifay Touba ca kanam ngir lan Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides nañ ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér dafa jokko ak Serigne Abibou Mbacké xamal ko ne ndox mi kat yitteem la te xaw na ci ak jaaxle tuuti mu bëggoon nag Touba ca kanam ànd ak Maawu Rahmati jàppale leen ci ndox mi looloo waral ndaje bi Serigne Abibou woowaa Maawu Rahmati woowaa Reter woowaa Afor ñu daje ci kër Serigne Touba gi ngir lan waxtaan ci yan anam la leen Touba ca kanam di jàppale ñoom ñi nga xam ne ñoo yor ndox mi ba li sëriñ bi bëgg mu am ko moo tax sëriñ Abdou bi di tàllal loxo ñëpp nag xam ne ndox mi ñëpp ci war jàpp mbokk yi ndaje moomu nag lañ fas yéene ànd ak yéen gaaral leen liggéey bu am solo bi nga xam ne tubaa ca kanam liggéey na ko ci ndox mi ndaka ñekk daf cee nekkoon xanaa kay sëriñ bi dafa bëgg ñu gën cee jàpp rek te it bi li ñëw dafa fekk tubaa ca kanam noson ab jataay ci mbooleem ñu sekk ndox mi ba am lu am solo lu ñu fa tënk waaye dañuy fas yéene ànd ak maawu raxmati ak waa OFOR ak képp koo xam ne nii dara nga ci ndox mi ak bokki taalibe yi it nag ñoom it ndax kat ah ndox mi moom ñëpp ci war a jàpp nag rawatina nag ñi koy jëfandikoo kon ñu ànd ak yéen rek ci kër sëriñ Touba gi ndaje mu am solo mi nga xam ne dafay amoon ci Touba ci kanam ak mboolem ñi nga xam ne ñoo sekk ndox mi. Touba ci kanam doon jumtukaayu Serigne boo xam ne. moom liggéeyal sëñ Tuubaa ko tax a ci dëkk bi ci wet yëpp nag waaye wetu ndox mi it doon wet goo xam ne gu ko itteel la gu Tuubaa ci kanam yàgg dox la Cheikh Mamadou Muntaxa it am yaakaar lool ci kuréelu Tuubaa ci kanam ci wax ko ba tàyyi fisal ko waaye rawatina ndox mi itam nga am ci yéene lool am ci yaakaar lool ci jàpp ne jafe-jafe yi ci nekk su ko tubaa ci kanam àndee ñi ko dénk liñ ci li ci bëgg dana ko ci am moo tax mu jox ndigal tubaa ci kanam jataay bi li ko sabab mooy bëgg a waxtaane nag ndigal loolu sëñ bu jox nan lañ koy ànde sof ko ci ànd yañ àndoon te teg ko ci yoon woo xam ne lañ ca bëgg nun ñëpp dañ ko ci mën a bokk am la ci sëñ bëgg mu am ko ci la lépp luy yàq ab ànd ñu xam ko te ko ci lépp luy def ab ànd ñu xam ko te indi ko ci mooy tax ànd gi mën a mën a wér ndox mi jafe-jafe jafe-jafe na lool yàgg na lool diis na lool waaye luñ mënta jafe-jafe bu amul solution ci àddina amut luñ mënta lijjante amut waaye lu mu mën a doon nag bales ko lijjanti ñoo ko bëgg a lijjanti dañ toog waxtaane ko yaakaar naa ñu ci bare bare xamante nañ yàgg nañoo gisante di waxtaan ci ndox mi di di ci jëm waaye jataayu tey bii nag dafa bokkut ak jataay yooya ndax jataay bi moom day ndigal loo xam ne dafa jóge ci sëñ bi ñëw ne ànd leen ko rawatina nag fii ak màggal gi te bëgg na àggee ci màggal gi mu feeñ ci ne boole gi mu boole euh, maaw ak boole gi ak Touba Ca Kanam feeñ na ci màggal gi. ñuy bari panne na manque ndox bu méttee métti am. ci la Touba ca kanam na xalaatee ne dëgg dëgg ginaaw interpellation yi bari na mënee su cee selenglu kon faaw ñu jëm cee defi pexe ci la ñu sàkkoo ci maaw rahmate ak ofoor ñu am ay daje daje yoo xam ne dañuy waxtaan xool ba xam nan la ci Touba ca kanam mën a dugalee loxoom yàlla dogal na nag ñoom it ci seen collaboration ak ànd bu rafet ñu wuy si Touba ca kanam ñu bokk toog waxtaan bi ñu waxtaanee ñoom ñu génnee yi nga xam ne xëy na bu ci Touba ca kanam jàppoon fekk si ñoom it la def mën naa tax euh, saafara am yooyee nag bokk na ca lu jëm ci grue camion grue bi nga xam ne moo yor wàllu maintenance ndax camion grue bi fi nekk wax nañ ne dafa yàgg dafa màggat te li muy pan dafa bari te léeg-léeg bu moo mën a taxaw dépanne ko génnee pompe changé élément de colonne ak yeneen yi nga xam ne moo ñaareel ba ñu ne bëgg buñ mënoon a fexe ba am ay élément de colonne élément de colonne mooy tiwo yu weñ yooyu nga xam ne mooy dugg ci biir forage bi te xam ngeen ne Tuubaa ndoxum xorom la weñ yooyu lu koy màggat xumaatal dafa yomb te bu màggatee ba xumaat ba bënn day tax forage bi doole ji mu waroon am du ndax bu pompé ndox mi bu demee ba yéeg lu ci bari day jaar ci bën bën yooyu tuuruwaat loolu tamit jafe-jafe la beneen bi ñettal bi ci topp mi ngi jëm ci wàllu matériel électrique ndax xam ngeen ne armoire électrique yi ay appareil am jafe-jafe te tax pompe bi di gaaw a lakk wala mu bañ a dox normal ci toppaat mooy câble yi war a dugg ci biir beneen bi ci mujj na mooy lu jëm ci wàllu pompe pompe forage ay jafe-jafe la ci biir loolu tàmbali nañ di wut ay fournisseur xool fournisseurs yi ñu fi amoon wutiwaat ay fournisseurs yu bees dem fi ndakaaru contact bitim réew di dajale ba fi mu ne nii normalement tey jii wala suba lañ waroon a def synthèse mbooleem loolu nga xam ne war nañ koo jënd ci ay bagage laaj ko ci ay fournisseur bañ jox ñu ay prix ba nga xam ne kale nañ ko ngir bu ko defee bu ñu waxtaanee ba tënk nag léegi ci bu ñu jëndee matériel ba noppi wan doxalin la ñuy am bu ko defee nañ ñu doog commandé matériel bi mu ñëw boobaay léegi ña ngi ciy dox def nañ ci nangami réunion ba réunion bi ci mujj bi ñu toogee di ci waxtaan te mooy bërki démb ci la sëriñ Abibu wootee ne sëñ Muntaxa woo na ko jox ko ndigal jox ndigal Touba ca kanam ci ñu ànd ak ma Rahmatek Ofor jàppale leen ci ndox mi ba jafe-jafe yi mën a wàññeeku kon daal xëy na bu ñuy tënk jéego yi nga xam ne Touba ca kanam jot na ko jot dox lii la xëy na nag tey bii mooy li ci suñ kanam nan la ñuy def ba ànd boobu ñu wéyal ko dëgëral ko ba ba ba nga xam ne liñ ci bëgg danañ ko ci mën a am ndax réeru yu sew yi nga xam ne moo aju ci wàllu ndox mi yépp li ko sabab bokk na ci li ëpp ci li ko sabab mooy ñi ko séq ñaar li ñuy toog daa bariwut wala li ñuy waxtaan wala dañoo déggantewut bokk na ci li ëpp ci li ko sabab tamit mooy manque de communication bi nga xam ne am na ci diggante acteurs yi yor wàllu ndox mi ak population bi nga xam ne ñoo koy dund xay na bu fekkee ñi ngi waxtaan di waxtaan ak nit ñi ñuy xam fi situation bi toll ñu boole doole yi di ko ci def résultat mën naa am. ñu sawar fee ñëw lool ndaxte euh, Touba ca kanam yàgg nañoo jàppale ci liggéey bi dañ ko wax na ko jël nañu ay pompe yoo am na ñetti at yoo xam ne amoon na ay jafe ci pompe yu métti ah ñooñu ci jàppale woon. au-delà mooy extension yi nga ñu ko def ci quartier yi jëm na ko lu mat quarante nangam quartier ak yeneen ak yeneen ak volet bi mu wax fii muy lu am solo aussi mooy reparation fii yi am ci réparation fuites yoo xam cité na cas yi nga xam ne léegi at mi yooyu ñoo ci gën a am jafe-jafe jàppee ci seen matériel ak seen personnel loolu di aussi li ñuy rafetlu ñun waa Maou Rahmati li ñuy liggéey mooy li ñu ama ko si néew ñun suñ principal ressource li ñu am mooy branchement yi nga xam ne ku bëgg branchement da ngay joxe juróomi junni yoo xam ne nga dem versé ko ca banque ba bokk ko photocopie carte d'identité ñëw ñu defal la branchement loolu la ñuy def ñun la ñuy jël ak jaayante yi nga xam ne ñu taalibe ñu ngi koy def kilifa yaa koy def ci la ñuy ak ay matériel bi ñu soxla moom yi lu mu soxla ñëw bind ko ñu yebal ko ci fournisseur mais loolu lépp ñun ñu ngi koy ñu ngi koy supporté au niveau de Mamourati yàlla dogal na demaguñ fi ba ñu soxla matériel boo xam ne ñun li ñu li ñu waral mënuñu ko am nañu cher trop ndax joint yi tamit yoo xam ay soixante mille francs la jar yi jar mais yooyu yëpp ñu ngi koy ñu ngi yàlla ngi ñuy dimbali ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy bi ñu demee nag yi am fi mu ne difficulté yi mu ngi yi ëpp ci bi am fi ne baa mu gën a ñëw mooy problème grue bi grue bi nga xam ne mooy machine bi nga xam ne moom la ñu liggéeyee moom moo dem ba màggat ba ñu dañ ko de ko nga xam ne ñu di ko réparé réparé yoo xam ne mën naa ñëw ñu fay ci quatre cent mille bu ñëwaat ëllëg fay trois cent mille ëllëg ñu fay cinq cent mille bu ñëwaatee sax mën naa bañ am ñaari fan taxaw loolu tax moo tax ñu fekkante bi forage yi xaw fee fekkante ba xaw a bari xëy na moo indi ñàkk ndox gu tar gi période tabaski bi xëy na mooy suñ principale difficulté même personnel bi sax amul ci unité bi fii dafa dem ba amatul personnel dem nañ ba moom ñu dong des fa il faut mu am lu mat quatre ba cinq ba six personnes yoo xam ne ñoom ñoo koy war a jàppale ndaxte matériel bi dafa dëgër dafay kii mais bi ñu ko defee li muy bi euh, état bi diggoon nañu ne dañ ko renforcer dañ ko renforcer ci personnel dañ ko renforcer ci équipement loolu lépp noo ngi ñox ñox yi di ko du ko ko defar léegi nag bii bi daal mooy principal problème bi ak yéen ci yokk moo tax nag ñu fekkante fi fan yi ba lii ñàkk ndox bi tax fan yi ba ñu créé OFOR ñu ne code OFOR lépp loo xamante ne nii euh, muy patrimoine hydraulique rural ci Sénégal jébbal nañ la ko bañ ko ko jébbalee looloo waral Touba dugg ci nga xamante ne ni unité de maintenance bi moom tamit aussi day duggaale ci li nga xamante ne mooy patrimoine OFOR muy ci wàllum forage yi waaye foofu it aussi am na sew-sew bu ci nekk peut-être duma ci xuus bu baax waaye looloo waral euh, ci unité de maintenance boobu noonu ginnaaw ba fi amee ba mu fi amee njiit parce que foofu dafay jar leeral njiitu unité de maintenance bi Omar Dem la moom moo nekk njiit unité de ba pare tamit nekkaale njiitu euh, euh, division hydraulique régionale bu Diourbel man li ma fi indi moom mooy jouer rôle transition entre Maaw Rahmati wala boog autorité locale yi ne fii nii ak OFOR ba nga xamante ne bu amee jafe-jafe ci wàllum euh, li nga xamante ne mooy jumtukaay yooyu wala boog patrimoine bi ñu mën cee ay saafara nu mu gën a gaawee. wala boog bu fekkee dañoo war a defal forage ci ab bërëb ma motiver ko kat wax ne kat bërëb bi war nañ fi def forage parce que nangam ak nangam a tax bu fekkee dañ fa war a def ay extension ñu def noonu bu fekkee dañ fa war a def réservoir noonu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay jumtukaay yu ñu war a def ci waaye léeg mu am ay rëq-rëq rëq-rëq yi mooy comme wax nañ ko léegi nii rëq-rëq yi bari na benn rek la ñuy mën a lim wala ñaar muy manque de moyens ou manque de logistique bi ñu wax léegi nii jumtukaay yi nga tax yu war a mën a dem liggéey ci parce que man tey jii fi nii bañ ma fi indi fii jumtukaay yooyu noonu am na yuñ ma ci jox yoo xamante ne mi ngi fi benn muy oto peut-être ak euh, ay bureau euh, locaux mooy espace bu ñu war a mën a liggéey en bien entendu tamit aussi fexe ba tamit collaborer ak équipe bi nga xam ne ñoom ñaar ñoom laa fi parce que waruñu xëccoo jafe-jafe ndoxum Touba yàgg naa ko wax. nekkul lenn képp koo xamante ne lenn rek loo xam ne dañ ciy duut baaraam rek na lii kese la ay problème yu daje la ba bokk na ci benn bu njëkk bi fi gën a tuuti lay commencé mooy façon ba ñuy branché wala façon ba ñuy liggéeyee extension yi beneen bi aussi mooy ci forage yi forage yi la jafe-jafe yi ëpp yuñ fay am bu njëkk bi comme ni ko sëñ bi Moustapha Dieng waxee mooy juru bi juru boobu bu paane wala boog bu amee jafe-jafe moo waral bu paan amee ci forage muy waral jël temps lu tax parce que balaa ngay dem di intervenir foog nga réparer sa guri ba léegi ba pare nii rek mécanicien mi ngi may envoyé message guri ba dafa paanal boo xamante ne tey jii fi mu ne nii loolu moo ñu indi jafe-jafe bu baisse de amee ci forage balaa nga fay dem di def intervention baisse de bi gën a yokk baisse de débit moom muy turu en général du loolu képp en général muy turu yi nga xamante ne nii am na ci élément de colonie ou bien en tout cas élément de colonie day am ay bën-bën parce que lu waral loolu noonu xorom bi moo koy lekk su ko lekkee day dem ba nga xamante ne lu mu pompe day jàllaat ci suuf ba tax na loolu lam bu doon génnee téeméeri mètre cube ci waxtu dana ko wàññee daanaka sax du mat sax juróom fukki mètre cube ci waxtu loolu mooy tax ba yenn gox-goxaat yi pour ndox ma yegg fa problème la. beneen li nga xamante ne tamit aussi wax nañ ko sànq muy manque de moyen bi loolu c'est global beneen ba ca tegu. muy équipement dëgg jour yi équipement dëgg jour bi dëgg jour dama ko globaliser mooy élément de colonne mooy pompe mooy câble mooy lépp loo xamante ni day jëm ci biir forage ci gàttal doo danañ ko soxla wala boog en tout cas tey jii fi mu ne nii donte danañ ko soxla état bi aussi mi ngi ciy def ay jéego jaarale ko ci OFOR chaque année dina am benn budget spécial bu ñu alloué Touba boo xamante ne ci loolu la jëm mu jaar ci loxo yu leer yoo xam ne sax jaata na ko ñun dañuy ñëw ñun ne kat moo ngi nii bu ñëwee fépp ñu koy def fu ne dañ koy leeral ne fii ak fii ak fii lañ ko def ah, ndoxum tuubaa dëgg la naam am nay jafe-jafe aussi bu ñu waxtaanee ba ay solution teg ko dëgg yàlla yaakaar naa jafe yu baree bare war naa mën a wàññeeku wala wa wa ilaa boog war nañ mën a am ay pexe yoo xam ne fi ci biir jafe-jafe yooyu noonu dana daj wala boog dana wàññeeku. gis luy yàqu nga wax ko dara nekku ci tawfeex la ci ku bëgg a defar loolu lañu ñu sëñ sant. na ngeen leen reeteet na ngeen leen jéebaani ñi yàq ndox mi fu ngeen fu ngeen dem na ngeen yóbbu sama tur loolu sañ bee ñu ko sant bañ ko dalee ba ba léegi ñaari at wala ñetti at mat na ko Touba ca kanam moo yor mooy financement yi ñii ñoo yor technique bi ak wàllu maintenance bi ak distribution bi ñun ñii ñooy taxaw barab sàngam amut ndox barab sàngam amut ndox nangam yàqu na nangam dem leen defare ko ndax ñun ñii amuñ sañ-sañu beddi maa wa raxmati ndax ndigalul sëñ bi la offre 38 forage ku ko def ci dëkk bëgg nga dëkk ba am ndox léegi ndoxum Tuuba jafe-jafe yi ci nekk no wan yi dañ ne dañ koy tëj ñun ñoo ko wax te dañ ko gis luñ teg suñu bët la bërki dem boo njaay matugul fukki fan ak juróom Mourtala Gaye mi am nag sëñ Moussa Diagne mii tijjiwan boo xam ne ma ngi ca Madiyan na ba mu ko tijjee Madiyan ya ci nekkoon ñëpp dañoo am ndox waaye ñu xam ne ndoxum Tuuba mii demut ci réseau bi la ko dem ci réseau bi nag ay wan yu yu tëju ci la bokk ay wan yu grippe ci la bokk xumaag kal ndox mi ba dootu dem ay maana mm, fo sëtu dooy ñàkk duy ndox ba mën koo puus ci la bokk loolu li may xamadi xamadi ndox xam naa ne pompe buy rouler vingt quatre heures sur vingt quatre booloog di pompe di di di xëcc di di sànni te yàgg loolu ñu xam ko il faut ñu xam ne fo actuellement may wax ak yow nii recensé woon nañ fan yii ci ginaaw juróom-ñaar fukki quartier yoo xam ne ay nit a fa dëkk woote ne Touba manqué nañ ndox am na luñ ci def ñoom ñii xam nañ ne mi ngi wàññeeku ndax ñu nekkuñ fi rek di xaste ak di ngàññi ak di wax lépp luñ xam lu baax dañ koy wax lépp luñ gis mu ñu defar ko ñoom ñii buñ collaboré ak ñun buñ defaree dara ñu taxaw ne leen defar nañ ko waaye bu fenn paanee daañ taxaw fenn paane dem leen defar ko loolu suñu objectif ndax sëñ doonu ko sant ofor mii il faut mu seetaat ab liggéey menn mbamba sax mënut ne ci dëkk bi di ko seere il équipe ba ñu bëgg mu jóge fi de wala leneen xeexuñ ko xasuñ ko waaye na am équipe bu mu àndal Touba capital la capital boo xam ne mooy nekk deuxième ville du Sénégal ci yoon ay commune ay ay commune d'arrondissement lañ ko waroon a def kenn nit mënu koo seere rawatina màggal bu ñëwee ñun ñii may wax yow kenn ku ci nekk boo taxawoon sa buntu kër fii màggal nga un mètre mënoo dox ndax a nit ñu boole kon nag buñu nee Bamba Sarr mi moo fi nekk ko fort di ko gérer mel na moom mënut a nekk Pablo bay nekk maa war a xamante mënut a gérer maa war a moom foofu équipe yi fi ne ñu dooleel leen jox leen ay mooy ñu ànd ak ñoom ci terrain bi liggéey. ñun suñu bopp mooy metti ñuy faj ay tànk forage Touba il faut que ñu wax lan mooy problème mu forage Touba forage Touba ndox mi génn si forage yi ak la fa nekkoon moo nekkatul benn il faut que ñu wax ndax ba daaw bi ñuy gas forage yi wax naa leen ni Touba kenn waratu fee gas forage boo calculé forage yi Touba yi ñu fi gas forage bi ci gën a néew ndax forage yi Touba Sones rek la ñu tollool ay forage forage yu mag la ay diamètre yu seize pouces la ak treize trois huit crépinu huit pouces la wala six pouces mais forage yu Touba réhabilitation forage yu Touba moo tax forage yu Touba amatul ndox ndax xorom bi fi nekk crépine yi nekk ci biir ay trente mètres la vingt mètres la lii bënn tiwo yi nekk ci pompe bu muy muy baisse de débit est-ce que nekkul fa ndox may taaju continuer état liggéeyul Touba pour Touba mën a am situation ndoxu Touba réglé bu fekkee si condition yi lañ ko lañ ko teg Touba nit waratu fi gas forage man def naa fi au moins quatre forages yooyu maa ko gasal suma bopp ndoxu Touba li fi nekk booba ñun suñu calcul dañu calculoon ni Touba cinq millions de personnes yeewul Touba te man gëm naa ni dii forages yu normal yu ñu teg si yoon man naa yor Touba sàkkantuma ak Touba yor trente huit forages ñuy wax problème mu ndox mënuma d'accord si loolu il faut que ñu xool li ñuy wax lu mu doon ak fan lañu ko teg état rek solution Touba état réglé gu ko te état du ko réglé ñun waa Touba ñoo koy réglé damay wax ni Kaolack Touba ëpp ko juróomi yoon wu la juróom-benn juróom-benn forage nekk Touba te Kaolack day am gàmm musu leen a dégg ñu ni waa Kaolack nga mars ndax am nañu kenn mus na ko dégg juróom-benn forage fa nekk juróom-ñaar lañ fa gas benn bi dañ koo tëj ñu ni Touba am na 38 forage te ñoo bokk même nappe bi ñuy produire ñoom ñaar maastrichtienne bi ñuy gas Touba li fi nekk ci ndox bu fekkee tegu na ci yoon ndax bi muy def loolu di def test ndax looy wax lu nekk da siy teg sa loxo muy luy dëgg. bi ñuy xool ndax Touba am na ndox bu neex si jamono Cheikh Amadou Lamine Bara tindoo di la ñu dem ma def fa benn forage mu diamètre bu ndaw dix pouces trois quarts am fa soixante dix mètres cube heure alaaji ma njaay jonga laaj ñu ndax lii est-ce que mën nañ ko gën man leen nañu dem vingt huit kilomètres ñu dem daaru salaam daaru forage ba ma fa def mën naa faa génne quatre cent mètres cube par heure rapport forage baa ngi nii ak man léegi forage yi bu ko gasee Touba dafa bëri xorom ak filior ay crépine Johnson moo ci nekk ci biir ñu def gravier si gannaaw bu ñu demee ba yegg deux cent mètres deux cent cinquante pression ndoxu maastrichtien bi moom moo yéeg ñëw yéeg ci chambre de pompage bi ndax lay bënn tiwo pompe bi pompe bi day xëcc rek mais fa ndox ma taaju si biir lii génn di bënn lii nekk ci biti fa mu taaju pendant vingt ans quarante ans est-ce que warul mën a bënn léegi crépini bu fekkee vingt mètres la wala trente mètres mën naa suulu dix mètres la mu doon produire deux cent mètres cubes ay cinquante mètres cubes la lay jox ñu yaakaar ni si pompe bi la fekk ci forage bi la il faut que ñu réhabiliter forage yi Touba réhabilitation forage yi mooy hydraulique mënuñu ko def ndax amuñu moyen amuñu matériel bu ko def daaw bi ñu koy def waxoon naa mu door ne ko bu ñu def ndax benn forage su quatre-vingt-quinze millions man que na ñu jël ñaari forage mu ne amun que ñu réhabiliter au moins vingt forage ndoxum Touba duutuñu am problème mu ndoxu Touba Touba bu fekkoon lépp tegu a ci yoon ñu am vingt forage yi dox nit duutul jàmb tiwo yi toj la ñuy wax mais actuellement tiwo yi li ko forage yi di jox doyul ndax forage yi li muy joxe lañ sa waroon a def ndax SONES kii mu ngi wax sànq ni diggante Pout ak Jandeer am na quinze forage lu mat cinquante sept forage ak forage bu SONES def Sénégal xam naa forage yi ñu def Jandeer ci sumay rapport la ñu jëlee def naa fa trois forage saale ngoo ma ko doon contrôler kon li may wax xam naa ko forage bi ëpp ndox ci département Louga maa ko gas biir Louga maa ko gasal SONES mais tey li ñu calculé noonu si jamono yi sëñ Cheikh Aliou nekkoon dañ doon calculer nañu def onze forage kër Serigne Touba bu nekk gas benn forage seex yi ñu def leen bu ñu amee forage bu nekk trois cent mètres cubes par heure combien de mètres cubes lay doon par heure benn waxtu bu nekk loolu Touba mënuñu koo naan mais il faut que ñu xalaat ni forage yi ñuy gas bu màggal day jot ci comme ni ko sëñ bi waxee état daal dajale ñu jël xaalis daal di ñëw gas loolu réglé wul problème mu Touba il faut que ñu xool ni forage yi Touba ndox bi muy génn moo doyul bu ñuy jëndi pompe ba déwén tamit at mu jot dañuy gën a am problème at mu jot dañuy gën a am problème. am na ku ma envoyé benn audio barke démb boo demee Gelor tool Serigne Saliou ba fa nekk espagnol ya fa nekk demoon nañ ba seen forage yoo xam ne kat yi dañ ko abandonné woon woon ni dañuy gas yeneen forage ba d'accord ak entreprise bi ñu ko def bi ma ñëwee ut caméra ndax forage yi il faut ñu def leen il faut que ñu jël caméra dugal ko ci biir xool ndax amul tiwoy daanu ci biir ndax crépit ni suuluwul wula de bu ñu defee loolu ba pare am na brosse yoo xamante ni ndax oto boo yor doo ko vider doo changer filtre à huile doo changer filtre à gazole bu huile bi dee bu yàggee sa oto loolu mooy problème mu l'essentiel Touba forage yi ñoo génnewul ndox mi doy pour mu jox nit ñi il faut que ñu wax te loola état pour mu def ko il faut nga calcule benn forage bu nekk boo ko bëggoon réhabilité lu mu dee dee di fay six millions mais jar na ko boo naree def quatre forages bu nekk cent et quelques millions wala nga def tant de millions nga def au moins quarante forages yoo xamante ni mën nga ko réhabilité foo amoon deux cent mètres cubes di nga sa am mais 38 forage ci biir Touba ñu ni Touba day manqué ndox nit ku xam forage laa wax de xel mënu koo nangu bu dee dëgg xel mënu koo nangu bu màggal jotee nag dinañu jël budget jël seeni oto jël lépp mais hydraulique si boppam mënul def réhabilitation forage xamuñu ko ndax amuñu moyen mën nañoo relever pompe changer pompe ñoom bu ñuy airlift si biir chambre de pompage bi rek la ñu yem mais réhabilitation da ngay dem fa ndox may génnee ndax forage bi bu defee ni mooy chambre de pompage bi mun na nekk PVC mais tib yi nekk ci biir ay tiwa Johnson la suuf du ko lekk mais gravier la ñu dugal comme ceeb lay nekk ci biir bu ndox mi di daw mooy tey suuf si ba suuf si du ñëw xoma xoma yi na tiwa bi mën naa nekk fii di suul li nekk fii bu ko suulee bu fekkee vingt mètres la woon nga mu suulu dix mètres li nga doon am à vingt mètres duutoo ko am loolu mooy déficitu problème mu ndoxu Touba loolu mooy problème état wu Sénégal du ñu def loolu SONES mosu leen a dégg seen forage am problème mais forage seen bopp il faut que ñu réhabilité bu ñu gasati forage Touba bu ñu jëlee état naree jël xaalis di ko joxe pour ñu gas forage nañ leen wax nañ ko réhabilité tey jii bu ñu xooloon quartier yi nga xam ne ñoo gën a néew ndox ci Touba ñu xool quartier bu ci nekk ñu réhabilité fa trois forages wóor na yàlla ni màggal ak du ñu am problème mais problème mu Touba il faut que ñu xool ni lii ñu bëgg a def bu màggal jotee ñu jël xaalis jox ñii ñu jënd pompe jënd du régler si bu jënd mille pompes pompe forage bu nekk muy trente huit forage yëpp bu ñu jëndoon ay pompe def leen si tamit te forage nab bi la muy produire joxu ko tamit problème rek la ñuy amaat il faut que ñu xool peut-être màggal gi jàmpana peut-être li fi des matul deux mois bu ñu mënoon a fexe au moins ba am budget boo xamante ne bii dinañu mën a réhabiliter au moins dix forages man wóor na mu ni màggalu Tuubaa du ñu am problème mu ndox. yéen a ngi tur a Tuubaa Cheikh Mamadou Mountakha te ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko woote bi ñoo daje bi ñoo ko woote woon tey jii ngir ñu daje ak yéen. pour taane ndigal loo xam ne daa suñu kaw sëñ bi damaa woo ne dafa am ak jaaxal lool ci liggéey bi ndax ndox mi da ko jaaxal lool daal ndoxum Tuubaa mu xam ne Tuubaa ci kanam kat jumtukaay sëñ Tuubaa la mu bëgg ñu ko liggéey bi jàppale ko ci ndox mi pour uh, ma sëñ Moussa Dieng dé mooy sëñ ko laaj ndigal wala ju dara moo ma wax ma li ma wax ne man ma nañ ma ko yoral ni ma jàppale nañ ma jàpp ci ndox bi jàpp ci Moussa Dieng naa ko mu ñëw ngeen waxtaan ci bu baax a baax loo ci xalaat ndox ko ci liggéey boobee loolu mooy saw moo bi mais boo xam ne ma ne suñu Moussa na nga ñëw waaye suñu Bamba Sarr na nga ñëw Abdou Fara mi moo yor seen numéro ma daal boo suñu Moussa doy li mais ne ko na nga ñëw ndax waa Dekkel li ma jublu mooy ñetti kuréel yi xam ne seq liggéey bi maa uramati yow lañ jox liggéey bi yow mii lañ wax jàppale ndax gis nañ ne am na sooxe te Touba ci kanam ak li sëñ Touba la jumtukaay sëñ Touba ñu ci nekk li ñu am moomu ci dara bu sëñ Mountakha ne ñoom tey bi ñoom fi tey ñun ñëpp sëñ Touba ñu bàyyi bi ma la wooyee nga ñëw ma woo sëñ Bamba mu ñëw mooy tam ci laa woo si Moussa Diop li ko ñëw yéen arrêté yéen xam terrain bi xam jàngoro yi fi nekk ci dëkk bi ma bëgg ngeen arrêté fu jàngoro taxaw ngeen ngeen ngeen sam ci seen baaram ne ma bang jàngoro am na fii bu ñu xamee jàngoro yëpp fi fi fi mu nekk ci dëkk bi ñu jóg wut suñ ko saafara saafara si yow mii la ñuy Moussa yow mi yow yaa yaa yaa yow mi yow liggéey am na yow liggéey nag moom li ñuy doxee lañ bëgg leer ñëpp boo ngeen gisee nit ñi am ci yéen kóolute jëkk seen àll yi jox ak leer a la nit ñi képp koo xam yaa ngi gis seen kanam dee leer la yéen si yéen ñoom koo defuñu mën a doon loolu na leer leer ak ñu leer bi ñu ko bàyyi teg bi ñu ko bàyyi ëllëg man nag lu ñàppee leer man gën naa ci doomu aadama yi jël seen alal jox ñu ngir sëñ Tuubaa fi ñu ne ko laaj nañ lu ñu mën nañ ko def xam lii mooy saw mooy mooy mooy mooy mooy Tuubaa ci bu ñu demee ba am ci kuréel yi bari ci dëkk bi waaye bu sëñ mu sëñ Muntaxaa demee ba xalaat ne Tuubaa ci kanam kat mën naa jàppale ci ma awtamati ci ndox bi ngir ñoo am ci solution du ci xaalis bi yor du leen waaye pas-pas la xool ci ñun yaakaar ne bu ñu ko joxee bu ñu joxee pas-pas te pas-pas lu mën amut pas-pas boobu la suñu mën taxaa xool ci ñun moo tax mu woote maa ngi sant Cheikh Ibra mais li wax léegi leer na nañ euh, xel moom daa jibluwut tax dañoo wax bu xol bu ju wax bu jógee ci ci xol ci xol lay tàbbi waaye bu jógee ci nopp bu ci aw làmmiñ ci ci nopp la am loo xam ne ku dégg da ngay xam ne xel nangu na ko daal ak lu xel nangu ak lu xel nangu dafa parce que dañuy wax ne nit ki bu jéem lu mënut keetaan ma njëkk sonn kon ñuy dox leer nañ lañ bëgg a dox lii yaa Sëriñ Tuubaa jox nañu ndigal nañ fas yéene ànd ñoom ànd ñoom ci liggéey bi liggéey bi dañuy ànd ci moom lépp lu ñu def nit ñi dañ ko ñu dugg dañ ko xam daa leer nañ bu ñu kenn nag jëm a indi ci benn ay ay ñu tëral ay procédure nangam lu ñu def na dañ ko yëgal yéen ñu état bi état kenn mu ko jiitu ndax ñu ci état bi bokk moo bañ ñu dem ba ca biir tim ñu naan te élection ngoon ñu dig dig yoo xamuñ ko wax naa fi gars yi am na dañuy wax bu leen ci yabati wax naa ko lu tax du ngeen ci yabati man wax duñ ko def tey tuwaat ci wax da ko fas boo xam ne lu ñu daje ko wax luñ wax duñ ko def boo leen toppee ni mu jàgg ñeewal yéen te doomu aadama kaddu képp la am kaddu mooy dugal doomu aadama ci lislaam moo génn ci saam as gor bu xasee wax na ko kaddoom moom bu moom kaddoom tuwaat ci kanam loolu mooy yëfam kon yéen daa fas yéene ngeen jóg liggéey Sëñ Tuubaa woote Sëñ Tuubaa man nag ay tappale mun xëy ma xëy ma ci kon xaw ma ci dem fee ak lu ngeen bañ ma laaj boo ko yëg lu may dana di gindi bi ndax sëñ ci fi sëñ Tuubaa képp ma ci bàyyi yéen ñi moo leen ci bàyyi yéen itam pas-pas boo bëgg maanaam pas la la la la soxla yu am na ngeen ko man koo bokk pas-pas laa waxoon lii nag amu ci a amu ma Demba kenn ku ne amu ci sa wàll ken kenn ko jàpp yow yaa a doxal Abi Mbàkke daal ci kàddu yaay moom nit ñi moom ma leen yëlifuma fi kenn te bëgguma yëlif kenn soxla ma ko man attaar bi dafa seen daal maa am loolu lépp jàpp suñu Tuubaa jëlee ko taalibe kon daal seen effort euh, suñ Bàmba li ñu ñaan di ko ñaan si Moussa mi nga xam yow lañ teg liggéey bi ci loolu soxla ubbil li bunt ci Touba Ca Kanam lépp loo xam ay moyens la te ñu ko am Touba Ca Kanam danga wuti te lu wut suñu Tuubaa dañ ci dimbale suñu Tuubaa daa waxoon ne katabtu fii baxri annii laa amuru yadii ilaa nasaara abiidil maa'i ah, li muxnin kariimin naafi'in samanin laa yadurruhum taatiihim shaatiin wuñu taal loxo ndax lu ko am ndax jaamu yàlla ak liggéey fi am lu ñu liggéey dañ am su su su su suñ jaamu yàlla yàlla dimbali kon maa ngi woon ñëpp ñu jaamu yàlla góorgóorlu te liggéey bii nañ sax nañ sax si daan tukkee dégg nga fas yéene ànd yéen ci loolu yi daanañu umb am yu war daawuñu xam te nit ki bu ngeen fas yéene ànd ànd leer bu leen umpante dellu waxam dëgg ndax waxam dëgg bu yàq ànd ànd yàlla taxutoon waaw kon nag loolu laa amoon ci wax maa leen jégalu bu ngeen bu ngeen xëy ba tey yéen toog kenn ko jënd sa taa def ko ci ngir liggéey suñu tuwaa kon sant nañ ne gërëm leen leen ñu ngi leen ñaanal sëñ euh, Abdou Diagne waa plombier bi yéen yéen itam liggéey baa ngi nii rek ndax mbirum ndox lañu wax te kenn ëpp leen ci sant na la gërëm nañ leen kenn ku ne ci yéen gis nañ taxawaayam ci Sëriñ Tuubaa waaye nag kenn ku ne jàpp nañ yow Sëriñ Tuubaa liggéey ko wax digal la ma ngeen la ma sëriñ bi jox naa ñu jàppale ko ci fas nañ ci yéen jàppale kamtulaay kattan maa na ko yéen ñi nga xam ne yéen a li ndax luñ ci liggéey suñu tur yi ñu waaye liggéey bi yéen la kon sant naa leen gërëm naa leen maa ngi ñaan yàlla ngeen taxaw ci Sëriñ Tuubaa waaw kenn ko yaa xam sa bëgg yàlla ko yàlla defal kon liggéey baa noonu ci kaw ci kanam rek waaw buñ buñ ci dellu ginnaaw mukk nañ des mu yàlla kon mi ngi naan bu ñu jógee fii tey jii balaa màgg gi wala balaa bis yi des da siy mën a gis naa am soppiku tolloo mën naa lekk baax jërëjëf. mbokk yi gis nga ginnaaw bi ñu tënkee ba pare gannaaw bi Touba ca kanam it dégloo mboolem ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nga xam ne ñoo yore ndox mi Serigne Abibou leeralaat ne Touba ca kanam yorul ndox mi waaye am na lu jàppale leen ni amee ndigalu jàppale boolem ku yëngu ci dëkk bu sell bi di tubaa ak lépp lu dëkk bi yittewoo waaye mbokk yi xam ngeen ne fii ak màggal soriwul nag kon nag kenn ku nekk bàyyi xel ne mbooloo mi daje fii amul fenn ci àddina fu muy daje du Makka ndakaaru gee nga xam ne toll nañ ci ñeenti million gu doomu aadama am nañ KMS 1 am 2 am 3 taxul ndaxaaru ndox ma mat te lii daje fii tubaa ëpp na fuuf la yeewoo fa ndakaaru ñii ngi naan juróomi million ñii ngi naan juróom benn million kon nag xoddeeku balaa ngaa lakkale na kenn ku nekk xam ne waajal màggal bokk na ci nga faggu ay jumtuwaay yoo xam ne dang fay taataan ndox di ko denc ndax kat li wérte mooy diggante fii ak màggal képp ku la ne mën nañoo lijjante ba ndoxu màggal du manqué loolu xëy na wax lu neex nit ñi la ak wax lu dalal seen xel waaye na kenn ku ci nekk xam ne war naa gën a laat ndox mi na kenn ku ci nekk xam ne dafa war a tabbal loxoom ci biir ndox bi ndax kat boo ubbee sa robine ndox may ball na sa xel dem ci fa mu déparé ba mu yegsi ca ka yor forage ba ca yoon wi muy jaar ci courant bi ba ni muy yegsi ci sa kër kon nañ moytu yàq gi tey dugal sunu loxo ci biir ndox mi te xam na nag fii ak màggal kenn ku ci nekk na waaj root teg ay bagaanam ngir lan bu màggal jotee bu ndox manqué moom mu fàgg woon ko bu yàgg ndax kat xoddeeku balaa ngaa lakkale mbokk yi te sunu diggante màggal daanaka ñaari weer képp ci des wajalilaayi maskani tubabat misras mi abijaayi xayri manabat